aouzu billahi samil alim min sarri seytaani rajim mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu day mel ni déglu naa tur bi taabal bi waaye ba léegi tàggagul te itti jeexul ma gis lan wax day mel ni daa waroon a fekk muy ruur kenn ku ne di coow waaye teguma fi ay pànk ñu xaw a yombare laa fi teg li ngeen di détaillé jigéen ci boppam ndax war naa liggéey mooy seenu détail jigéen ndax war naa liggéey boole ko ak sëy mën naa ne parce que li tax mu mën ne mooy li ëpp ci al axlab ëpp ci Sénégal comme ni damay day war a takk benn yem ci am dépasse benn fan au lieu que mu yem ci mu takk ñeent. benn micro lay rey. ñeent yi mu takk nag. ku ci sol daal moo koy jëndal boppam ku ci sol mbubb moo koy wutal boppam. beneen micro bi da nga koy rayee beneen micro bi. ba ci fayum xale yaak yu demee noonu moo koy defal boppam léegi kat ku kii kooku noonu jëkkër ji ko bëgg a toogloo ci kër gi jëkkër ji ko bëgg a toogloo ci kër gi ba pare wëlbati ko ni ko doo ko liggéey ndax loraangee du dal ci ñoom ñaar bi ci njëkk mooy njaboot gi lay njëkk a lor ndax moo leen daal fayal seen jàng seen jàng dana yàqu moo leen daal xottil seen xotti dana yàqu kon kon ci saal bi kon nañu xam naa yàlla nañu yàlla yërëm ndax xam naa ne euh, ni muy demee ci penc bi moom wuute nag ni mu waroon a demee ndax ci mbedd meeg ci kër yeeg yëpp weñante loxo yeeg dàqante meeg kottante meeg loolu lépp ndax di waru ci war a bokk kon ñu ñëwaat ci thème bi bu ko defee euh, soxna Bintu wala soxna Xadi sax ndax bi daa mujjee wax euh, jigéen comme que yow saxal nga mën naa boole liggéey liggéey bi ak kii ak sëy léegi fa muy liggéeyee ni soxna ni sëñ Cheikh doon wax léegi day gis si bureau yi ci entreprise yi ndaw si bu liggéey si sol yu gàtt ñëw moroomu góoram yi lëngantee ak ko laatante tubaarikàlla ndax loolu moom war naa bokk ci liggéey. Abdou moom bu liggéey surtout mu nekk ci bureau yi nga xam dafay daje nit ku nekk war na am comportement boo xamante ne bii. dina ko yore ba nga xamante ni bii saafonte yenn ñi nga xamante ne bii bokkut ak ñoom wër mën naa ñàkk foofu ndax li tax liñ naan bukki eh, bu ko bu jabee ko man nañ koy xetee ca doxin wala ndax boo nekkee jigéen nekk si sa bureau war ngaa respecté sa bopp bu baax a baax a baax ah sàmm say cër bu baax a baax a baax ba nga xam ne lii moo la fi indi nga def ko bu jeexee nga dellu sa kër bañ a nekk di saafonteeg ñoo xamante ne waroo saafonteeg ñoom wala nga nekk di am pause di waxtaan nekk si di di débat ci leneen loo xam ne loolu waru la waaw bu fekkee ne boo boo nag nga dem sa li euh, nga xam ne dara du fa manqué. bu fekkee dafa yàlla da ko dénk borom kër bu fiir nag comme ay bi defal ma rapport bee wootee guddi ak yu mel noonu. waaw loolu lépp ci communication la rek Abdou Karim loolu lépp ci waxtaan la ndax couple chaque jour dañoo war di waxtaan kenn ko nekk xam li nga bëgg ak li nga bañ mm-hmm. waaw bu fekkee na nag euh, buñ xëyee daje ci kër gi buñ paree duñ waxtaan duñ toog duñ def dara kenn ku ne doo xam lu ndax moom kenn euh, nit dafa lëndëm mm-hmm. waaw léegi nag bu fekkee couple yi nga xam duñ waxtaan moom chaque jour moom ci ci ci mbettee rek lay lay lay lay am waaye couple dañoo war di waxtaan bu fekkee moom dafa tàgg borom këram na ko bëgg a liggéey tam bu fekkee dafa jàng ba nga xam ne am na diplôme yoo xam ne mën na koo yóbbu mu liggéey ci bureau wala mu liggéey feneen ak feneen war na daje ay mbooloo jëkkëram nangu ca da ko war a def fekkee nag jëkkëram da koy bàyyi ndaxte ndigul borom këram la wala toog waaye bu fekkee ne jëkkëram moom nangu ne mu bàyyi ko pour mu dem liggéey ne dem liggéey te liggéey gi mu liggéey tamit dara dara ko dara waralu ko lu indi ci këram waaw li dégg naa sànq ñu naan jigéen góor day est-ce que du papa day jox yaay rek